Abonnez-vous sur Hamalma TV ngir jëmmal kàddu mag ñi. mu ne kon nag lu taraanga ji bari bari bari tax nga foog ne da nga fiy toog moo tax dee ci borom alal yu bëgg àdduna la gën a metti ndax buy dem alal ja rek lay xalaat waaw du bëgg a dem waaw moo tax amin tuum suñ borom ne ndax nee ndax wóor na leen ndax am ngeen kóolute man ci buur bi nga xam ne fi sama yi mu ci asamaan an yaxsifa nee na muy nuural bi ko ci yéen al arda suuf al xasf mooy nga dund ci kaw di dox ci kaw suuf ba jikki suuf toj def kàmb gu nga dugg ca biir suuf keb eh, delluwaat nga nekkub néew ca biir suuf sa mujj de bàmmeel ci yow moy tremblement de terre yi ngeen di gis neena ndax wolu ngeen yalla ni ngeen di dundé ci ko souf wolu ngeen ko rek ne non la xéewal gi di continuer bu ko neexon fu ne ni xar souf ñun ñepp ñu dugg ci biir dee ci sarsi te léeg mu def ko yëngal ben barab rek ñu bari dee ci hmm léeg mu def ko mu ne bu len ko wolu bu wolu yalla ndax souf si mu len tagatal ba ngeen di ko jëriñoo di ci am lu ne mu nekk seen taranga mën naa nekk seen musiba waaw dañu wax ne anasirul arbaa yi yàlla di bindee yi yàlla bindee doomu aadama ci la koy mbugalee xam nga yàlla mu ngi bind ci suuf léeg mu yëngal ko suuf def dégâts yu garaaw te ci suuf la ñu bind léeg mu yebal ngelaw ndax ñun ci ngelaw la ñuy noyyi soo demee fii Amérique am na ngelaw yu bon yoo xamante ni dafay mel ni ngelaw giir sama moot waaw wa amma thamud fa uhliku bi rihin sarsalin atiya ngelaw yooyu ba léegi mu ngi am soo demee américains yi ñoom xam nañ ko bu baax ngelaw la yoo xam ne lu kër rëy rëy da koy daaneel day jàggati nit tey ko ci miir mu tas ndax doole ji mu am ngelaw yooyu itam eh, eh, ci doomu aadama la bokk mënu cee ñàkk ndax mooy oxygène bi ñuy noyyi mais ngelaw loolu léeg-léeg yàlla duma ñu ci léeg yàlla duma ñu ci safara dégg nga mooy Volkan yi ngeen di gis tabarakallah leleg mu def ay dega leleg itam yalla duma ñu ci ndox gis ngeen tsunami bi moy tabarakallah geej bu jek jek rek daal di ci nit ñi dugg ci dekk bi ay kilomètres kilomètres aw ray ci ñu bare bare bare bare bare kon kat element yoy ñu yalla bindé leleg mu duma ñu ci motax suñ borom ne suuf si ni makoy mu nek sen taranga bu leen amu kóolute ci ne su ngeen jaarul fi ngeen war a jaar mën naa nekk seen musiba te mooy ma rek nuural leen yéen ñëpp ci suuf si ray leen ci benn yoon su ko defee fa ida hiya ngeen gis ne suuf tamuuru ne na mu ngay dégg nga baj-baji di yëngatu yëngatu bu metti ngir lan ngir alak ñi dëkk ci kaw mais à condition que ngeen sant yàlla ci lim leen defal tàggatal leen suuf su fekkee nag sant ngeen ko ci mu nekk seen xéewal ba ilal abad su fekkee santu leen ko ci nag suñ borom dana xëy rek tabaarakallaahu yëngal suuf ñi fi nekk ñëpp daal di alko te loolu mujjug jamono lay am bu ñu demee ba nit ñi faaleetuñu yàlla ku gëm yàlla nekkatul ci kaw suuf da nga gis nag taraanga ji nekkoon ci kaw suuf ak tàggat gi ko yàlla tàggat dafay mujj nekk musiba lu tax yàlla daf naan suuf maa la defoon teraanga ci nit ñi léegi nag nekkal seen musiba su ko defee asrafil ëf puftu ba suuf baj baji nit ñëpp daal di dee moo tax mu ne na ngeen bàyyi seen bopp xel saa bu ngeen ma fàtte fàtte teraanga yi ma leen defal danaa def suuf mu di seen musiba wala mën na bàyyi sax suuf jëflanteeg yéen ci beneen sama beneen jaam te mooy ngelaw am amintum ndax wóolu ngeen man buur bi nga xam ne fi sama i mu ci asamaan an yursi la muy yebal aleykum ci yéen xaasiban ngelaw lu bon ngelaw lu am doole te am kattan xam ne day yëkkati nit tabaarakallaahu ni mbëru làmb di yëkkatee ab liir ci dooleem tey ko ci miir ku na xam ne tabaarakallaahu eh, macha allah Eh, mbiru làmb yi nga fi gis tey ñu nekk eh, roi des arènes fa ñu toll ci kattan ah, liir bi juddu tey bu ñu ko téyee buñ ko sànni ci miir liir ba yàqu na te am na ngelaw yoo xam ne seen doole nee ëpp na doole yi mbër moomu le ci ni muy jàggatee nit ak ni mu koy rey walla muy ngelaw loo xam ne dafay ànd ak i xeer ay jëmbaraay ngelaw yu bon yoo xamante ni xeer ya mu àndal moo gën a garaaw balu fetal te loolu nag bu mu leen yéem ndax yéen a ngi romb ay dëkk yoo xamante ni dañ leen di wax ne leen dëkk bi moo di dëkko giir samu te noonu leen leen alage teg ngeen ci seen bët wa amma du fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya ngelaw loo xam ne juróom-ñaari fan la ko yàlla tàggat ci seen kaw kon yàlla ngi artu nit ñi moo tax mu ne fa sa taalamuuna xel seet ngeen a xam kayfa nadir naka la sama xuppe ndax am na ñu fi jaaroon ci seeni maam ci ngelaw laa leen alage nee na wa laqad kadaba weddi woon na alladina gaañ a nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen te mooy lu demee ni ki giir aada giir samuud fa kayfa kaana nee na fa kayfa kaana naka la nekkee nakiir yi nee na sama mbugal ci ñoom xam ngeen ko jàng ngeen seen histoire wax nañ leen ko léeg-léeg sax ngeen romb dëkk ya léeg ngeen romb Sodom ñu ne bii mooy dëkk góor jigéen ñi waaw yàlla dafa wëlbati suuf ci seen kaw faf def ko bàmmeel gis ngeen ko ñoo ñu suufal leen duma romb ngeen giir aad giir samut ñoo ñu xam ngeen ne ngelawa leen duma waaw wa amma samuudu fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sabaa layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuma fa tara alqawma fiha sarca ka annahum acjaazu naxlin xaawiya alors kon nag bu leen wóolu jox naa leen suuf jël leen yiw wi waaye nag taxul ma bind leen li tax ma bind leen mooy ngeen jaamu ma sant ma ngeen ko deful nag dana mujj nekk seen musiba mu ne waaw yéeféeri ñoom xanaa sax duñu xalaat gisuñu picc mi ci kaw ni muy naawe di bank laa famille di ko tàllal xamuñu ne mana alam yaraw xanaa gisuñu ila tayri ci picc mi le fawqahum mi leen tiim nekk ci seen kaw di naaw xanaa gisuñu ko moo tax picc moom bul ne ci àll rek nga koy gis da ngay toog léegi sa biir kër lu dëkk développé développé dangay ngay gis pitax yi di naaw waaw pour rek yow jullit bi nga war a mën a téen yéemu ci pitax moomu na muy naawee waaye néew na néew na doomu aadama bu ko def waaru ci picc na muy naawe suñ borom ne alam yaraw xanaa gisuñu ila tayri ca picc ma nekk fawqahum nee na mu tiim leen ci seen kaw saafaatin na muy tàllale laafam ya wa yaqbit na ak na mu koy ŋëbe façon naaw boobu ñu ne lu tax bii mu nekk ismu faa'il bii mu def ko fiil saafaatin ak bële mu ne wa yaqbit na lu tax suñ borom deful ñaar yëpp mu nekk ismu faa'il wala deful ñaar yëpp mu nekk fiil mu def bii ismu faa'il bii mu def ko fiil parce que lu tax mu def saafaat pour wan la ne la picc ci tàllal laafam lay gën a yàgg ci bank ko waaw ndax tàllal googu muy tàllal laafam kii dem kéemtaan la kéemtaan la ndax bu fekkoon euh, maanaam daf ko euh, maanaam naaw mooy di di bank di tàllal di bank di tàllal noonu rek mooy naaw kon nga mën a wax ne ci loolu lay maanaam yëngatu boobu mooy tax mu dem waaye léeg-léeg mu ne tekk moom picc mi ci kaw te teewul mu ngay dem yàlla nee na ban doolee koy yóbbu moom picc moom kon nga xam ne mën naa yàgg lool ci tàllal gi te dana dem lu sori waaye bank gi moom mënu ci yàgg su borom nee na nag xalaatal ci noonu mu tàllalee laafam te teewul mu ngay dem mu ngay dem kilomètres yu sori ci tàllal laafam yooyu moo tax mu jëfandikoo ismu faa'il ci ne ci tàllal bi lay gën a yàgge mu indi fa eh, fiil bi ci wan la ne ci banque gi nag du ca yàgg bu banquee tuuti rek day tàllala suñ borom nee na maa yum na jàpp leen kàttanal leen ci naaw googu ci waxtu wi ñu tàllalee waxtu wi picc mi tàllalee fam téewu ko ci naaw googu yombalal ko ko mu cay dem ay kilomètres illa rahmaanu dulul yàlla miy borom yërmande moo ko may loolu moom picc mi nga gis picc yoo xam ne tey danga nga jékki-jékki gis leen ñu jóge Amérique ñëw fii def fi seen vacance ay fan delluwaat tabarakallah suñ borom nee na waarul yow doomu aadama ci kattan gi def loolu kon kattan googu mën na lu ne kattan googu mën na la jox xéewal ba ngay caakaayu waaye boo sàgganul itam boo ko weddee mën na laa duma kon nanu waaru ci picc moomu le moo tax mu ne innahu yàlla basirun aji gis la bi kulli shay'in ci lépp dara na dana réeru nee na ndax kile haada nee na haada mooy ki nga xam ne huwa moom nee na jundun ab lël la mu di soldaar lëkkum di leen ñeel foog ngeen ne yam surukum danañ leen mën a dimbali min duni rahmaani walis yàlla xam nga tey la Yuusufa waxoon ca kaso ba rek nee na yàlla yu bari day sonal benn yàlla bu mën lépp mooy noflaay te moom la am suñ borom nag nee na waaw yéen seen yàlla yu bari yi nga xam ne ab lël la ndax kële moom mu ngay jaamu safara kële ngay jaamu ndox kële mu ngay jaamu benn garab kële mu ngi samp ay tuuram moom lay jaamu kële ab yonant lay jaamu kële mu ngay jaamu ab sëriñ kële mu ngay jaamu nit ku yiw ah alors léegi lël yooyu nga xamné ne ngi len di jaamu foog ne dañu len dimbali ëlëk yowmal xiyaam ndax foog ngeen ne ñoñu dañu len dimbali yansurukum min dunir rahman yàlla ni inil kafiruna nee déet yeferi dal illa fi xurur lul ñu nekk ci woru nee yeferi dal dañu woru lutax ñu woru moy foog nanu ne ëlëk yowmal xiyaam sëriñ dana len jàllale wala ab xërëm dana len jàllale nit ki dara du ko jàllale lu dul jëfam wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura mu ngok mu ne amman hadha alladhi ndax ki nga xamne modi yàlla yarzuqukum mo len di wërsëgal ndax yàlla mile alladi am man hada ndax kile te moo di alladi buur bi nga xam ne yarzuqukum moo leen di wërsëgal yàlla mi nga xam ne moo leen di wërsëgal in amsaka bu téye woon risqahu wërsëgal ndax am na keneen ku leen di wërsëgal déedéet bal li fi nekk ñoom daal yéeféer la lajju ñu ngay wéy fii utuwin ci seenu jàng ak seenu ndëng wa nufuur ak sori gu ñuy sori dëgg yéeféer yi daal nee na ci ak ndëng ak sori dëgg rek lan nekk gis ngeen nga leen ko ñoo jox liberté góor jigéen ñi ñoo jox tabarkàlla liberté jigéen ñi maa ngi dégg benn miraas boo xam ne benn jigéen dafa taxaw ne moom d'accordul ci góor ñaar jigéen benn moom ci alors c'est di doomu jullit bàyyim di jullit ñu woo imam mu ñëw war a def miraas bi mu ne loolu d'accordu ci ak kooku yéeféer yéeféer la parce que ku bàyyi ku bañ li yàlla atte yéeféer nga baalim nga faasiq Hmm? moo tax féministes yooyu ñuy créé ñuy dem ba nga xamante ni léegi dañuy nekk noonu diine donte sax ay jullit leen eh? mais ndëngate googu rek la ñuy continuer ba keroog yow mal xiyaam ñu daal di dee nag wala yaasu billah dugg safara suñ borom ne inil ka balli fi nekk ñoom lajju dañuy wéy rek fii otuwin ci seenu ndëngate ak seenu rëy wa fur ak sori dëgg ku ne xam na ne peine de mort dëgg la waaw ku ne xam na ne tabaarakallahu miraas mi yàlla tëral ni mu séddalee mooy dëgg waaw ku ne xam na ne sharia yàlla bi muy dëgg waaye nanguwuñ ko benn yoon duñ ko atewoo benn yoon dañ ko jël sànni ko fële waaye yàlla ngi xaar rek mu ne waaye nag ki nangu dëgg googu nee na mu ngi tegu ci siraatal mustaqim yoonam leer doxam jekk ki ko nanguwul nag ak lu àdduna rëy rëy ci moom lu mu yaatu yaatu ci moom yàlla ngi koy nirole ki dox ci lëndëm ci ay pakk ki pax nee na doxam du jub day fakkasalu di daanu di mbëkku tabaarakallaahu noonu la yàlla melale ki nga xam ne nangu na dëggam gi ak ki nga xam ne nanguwu ko mu ne afaman yamshi ndax ki nga xam ne dana dox mu ki bandi aji dëpp ala waji ci kanamam nga xam ne fu mu doxee ñetti tànk daanu jógaat doxaat ñetti tànk daanu ndax lëndama ki pakk ndax kooku ahda moo gën a gindiku ci dox moo gën a neex dox am man wala ka nga xam ne yem si mu ngay dox sa wi yen nee na ci autoroute bu yaatu boo xam ne lamp yaa nga ne faw leer mu nekk ca di dox wala mu taal otom di ca dawal nga xam ne dafa tegu ala sirati mustaqim ci yoon wu jub woo xam ne dañ naan ko fii sens interdit la Fi cent nga daw fi 90 nga wara daw fi nangam fi nangam fi nangam koku nga xamne dañ ko tegal point ba mu meuna xam la koy lor fa mu wara taxaw na mu war ndax koku gëna jub yoon wala ki nga xamanteni mom yoonam ken defaru ko ay paquet kese la ah ëkk ya nga ca pax ya nga ca photo photo ya nga ca muy dox di daano ko jub ndax koku gëna jub yoon ki nga xamanteni yoonam defar nan ko cey def ci ay mandarga suñ borom a ngi laaj kon nga jàpp ne kon ki ñu defar yoonam mooy ki nga xam ne yàlla tëralal na ko yàlla defaral nañu suñuy autoroute ba mu baax defaral nañu suñuy signal ba mu baax jox nañu yoon ak nañ ca war a jaare yoon woowu nag tabaarakallaahu du changé mukk mooy walan te li sunnatillahi tabdila ñi nga xamante ni ñoom tabaarakallaahu gëmuñu yàlla di créer seeni yoonu bopp moo tax bis bu ne ga dégg référendum lu tax constitution bi changé nañ ko dindi neen lii teg nañ leen leen di nañ ko woote nangam ak nangam xuloo bi waaw su ko defee ndax seen yoon ñoo ko tëralal seen bopp moo tax lu ñu d'accord tey bu buñ demaatee ñaari at ñett ñu génn ci wala ñu ne loi bi dañoo jóg ndax seen yoon dara baaxu ci ñoom ñoom la yàlla di misaal ci ki nga xam ne dafay doxe da fay dox di daanu di mbëkku ci kanamam xul waxal yow muhammad ne waladi moy buur bi nga xamne anshaakum mo len bind sos len créer len wa jaala lakum mo len bindal mo len defal as-sam'a ak deg wal absara ak gis gis nga fi sew sew nga fi pourquoi yàlla jital as-sam'a ci al-basar manam lutax yàlla jital deg ci gis ñu ne dégg moo gën a foor gis ñu ne xam nga noo koy xame képp ku yàlla fatt say nopp rek dootoo mën a tee wax moo tax tëx yëpp dañoo muuma tëx yëpp dama ne ku judduwaalee tëx muuma nga waxuma koo xam ne tëx dalaa laa dab waaw nanu bàyyi foofu xel ku tëx dab waxuma ko waaye ku judduwaalee tëx rek muuma nga xamuloo ne muuma bi mën na wax waaye lii problème bi mooy comme dafa judduwaalee tëx déggul benn làkk loolu tax mënul wax dara waaw ki walé teux degul ben lak looloo tax mënul wax donte mo ngi gis mënul wax motax teux bi nga xamné wolof la wala muy tukulor bu dundon ñeen fukki at ci hikma yalla ci xereñam mu dindi teux ga yalla dindi teux ga na la leer ne tukulor bobu du wax tukulor mukk dañ koy jangalat tukulor budé wolof la du wax wolof muk dañ koy jangalat wolof budé français la du wax français muk dañ koy jangalat français lutax ndax tax ga mo taxone degul ca lak ba dara ku tax degulo ben lak benn làkk tam fecce itam na waye wax boko degul bo xamul wax bi doo ko wax waaw tay am na ño xamne bo len beggol na na lo arab fu duñ ko mën a làkk mukk ndax jànguñu ko kon nag léegi mënuñ ca wax dara looloo tax tëx nañu ca moo tax suñ boroom wala ne leen nit su ñàkkee dégg mën na jur ci moom làmmiñam du fecceeku du mën a dégg benn làkk waaye nga dégg ci ne li tax dégg ëpp doole gis muy nit su fekkee day gis bu fekke dafa dafa silmaxa silmaxa googu du ko yakal dara silmaxa googu du ko yakal dara moy dana meuna wax te dana deg motax silmaxa di neex xel bu yalla jele sa sa sa leeru beut nga nekk silmaxa da nga meuna deg da nga meuna wax waye bu yalla jele sa deg nga judduwaale ko ah meun nga do meuna a wax waye meun nga gis waye wax bi mom do ko meun moo tax dégg moo ëpp doole tabaarakallaahu gis moo tax yàlla jiital ko moo tax toujours ngay dégg mu naan samian basira waaye doo dégg basiran samia samian basira fii mu ne wa jaala lakum as-sam'a wal absar kon dégg nga suñ borom ne na nit ñi xam ne maa leen bind wa jaala lakum maa leen may as-sam'a dégg wal absara ak gis wal afidata nee na ak xol bu ñu mën a xalate yii maa leen ko may waaye qalilan ma tashkuru néew na nag luñ ma sante ca loola pour ñoom rek c'est normal dégg gi pour yow c'est normal te bu ko yàlla dindi woon ci ci yow doo mën a wax moo tax mooma bele mënul wax waaw yàlla moo la xañ bët moo la may bët te buñ la ko xañoon tabaarakallaahu euh, mu metti lool moo tax ñu ne silmaxa nattu la waaye ku ko muñ boo xippee àjjana ngay gis barakallaahu kon mën nañu wax ne silmaxa bu gëm yàlla na la leer ne nitu àjjana la buy dox ci kaw suuf kon yal na leen yàlla dëgëral ci muñ xul na nga wax ne huwa moom yàlla alladi mooy buur bi nga xam ne dara akum nee na moom moo leen sos ngeen bari lool fil ard ci suuf ñu ne doomu aadama yi de bari nanu nga dem ji chinois yi bari lool japonais yi bari lool waaw nga dem amerique muy ay état yi état nit ña bari lool nga jóge fa tabaarakallaahu ñëw Afrique nit ñu ñuul ñi bari lool foo sànni sa bët lu ñuul rek ngay gis waaw boo demee Europe foo sani sa bët xonq xonq nopp rek ngay gis tabaarakallaahu yàlla ne leen maa leen bind ngeen bëree noonu te kenn ñaar ngeen woon Adam rek la woon ak Xawa ñoo fi wàccoon tey xool leen ni ngeen bëree wax leen nanu fàttali maa leen bind de waaw maay borom kàttan li ma mën de moo tax ku ngeen fi naw ba foog ne. moo yor affaire yi naan eh, diw mooy borom na am na am diw lu na ah, yooyu yëpp nanu def jaam yi ñuy jaam yàlla ñi mu am bari na de ñi mu am bari na ñi ci gën mooy yonent yi te yonent yi ñeent ci gën mooy ulul azm min rusul ci amul kenn kuñ ci wax ne mooy borom kun fa yëkku ci ñooñu amul kenn yonent bi sax du borom kun fa yëkku ñun nag sénégalais dañoo ñeme dañoo ñeme dañoo ñeme te nag nanu xam ne yàlla seetaan na firawna ñeenti siècle muy fëgg dënnam naan ana rabbukumul aala may seen borom bi gën a mag yàlla di muñ rek di muñ rek muñ rek ba keroog dundam jeex mu naq ko ci baxru xalsu ci la bara jëlee bakkan ba muy jéem a nandite nag naan yàlla gëm naa la ah yàlla ne ko waaw nga ko waxee baaxul a ah, ko defee nanu teel nag wan nit ñi ne yàlla ko mën a muñ la te li soxla yëpp wax na ko ci alquran ku dégluwul alquran nag déglu mbedd bi mbedd mi dana la réeral te Aboubacar daan na wax ne li ëpp ci liy dugal nit ñi safara mooy seen làmmiñ moo tax bu toogaan ci grand place day jël xeer seex ko ngir bañ a wax léegi nag ñun dañu ñemee wax wax rek wax ci télévision yi wax ci mbedd yi wax ci conférence fu ne ngay wax waaw bu dee tijaan bi bu toogee tabarkàlla Euh, foog ne ne lu ne war na ko wax ci maqaama Cheikh Seyd Cheikh Ahmad Tidiane lu la Cheikh waxloowul loowul ko wax lu Cheikh waxul ci dundam bool moomale ko boppam bu ko wax waaw bu ko wax ah bu ko defee même booy wax ci xaqam neel a ah, waxuma de moom moo wax su ko defee mu baax waaye nag ñun dañoo ñeme di yëkkati suñuy sëriñ di yëkkati tabarkàlla te yooyu yëpp mën naa jur ay musiba te mën naa jur itam sànjum yàlla ñu bàyyi ko xel moo tax suñu boroom ne xul waxal yow muhammad ne huwa moom yàlla allazi mooy buur bi nga xam ne dara akum moo leen bind fil ardi ci suuf ngeen bari lool waaye lu ngeen bari bari nag dana xëy tukkal suuf te bu boobaa nag daañu leen pang jiital leen yéen ñëpp ndax géej yëpp safara la ko yàlla def safara soosu mooy mujj nag jërjëri nag wuti nit ñi nit ñi daw nag dajaloo ci benn barab nag safara soosu nag moo leen di jiital ñu jëm ci bisul pang ba moo tax mu ne yàlla ne wa tuxcharuuna def na leen pang jiital leen ilayhi jëme leen ci yàlla te kenn du manqué wa yaquluuna ñu ngay wax ñoom yéeféer ya naan mata hadal waadu eh yaa ngi wax ne bis benci eh, am na nit ñi dañuy dekki kañ la yow Muhammad yaa ngi bëgg a sonal nit ñi dañuy dekki sa alquran ji yaa ngi naan dekki dekki waa kañ la nit ñi di dekki kañ la wa yaquluuna ñu naan yonent bi mata hadal waadu dig bi kañ la in kuntum sadiqin su fekkee yéen yonent yi fi jiitu ak yow Muhammad dëggu ngeen kañ lañ kañ la bisu dekki bi yonent bi ne ban importance la leen amal kii laaj bisu dekki mooy ki ko war a laaj mooy ki gëm yàlla ndax boobu ndax moom nit danaan kañ la weer wi di dee ndax embauché nanu ko dañ ko war a fay muy xalaat salaire am ne kañ la weer wi di dee mais yéen amu leen salaire te bu weer wi dee dañ leen di tëj ci kaso di leen fa duma kon nag amul amul benn njëriñ ci yéen ngeen di laaj bis bi ndax préparé lu leen ko dara benn waay dafa toog ne yonent bi mata saa kañ la adduna di tukki yonent bi ne loo préparé pour bis boobu bu tukkee yow lan nga denc pour bis boobu mu ne ko sopp la rek yonent bi ne ko ku dee boo dekkee ka nga sopp woon la la yàlla di boole waaye nag alaaji Malick ne na cofeel googu yonent bi wax mooy ki sopp te roy waxul nag ki sopp rek yem ci bëgg naa rek yem ci non da ngay sopp te roy walay sa nafaun ala xubbin bila amalin laa laaj maa leen wax nee na njëriñ amul ci bëgg nitu yàlla wala bëggub yonent te royuloo ko moo tax man mënu ma nangu mukk ku ne gëm na sëñ Tuubaa te du julli ndax ku julli ba julli ci géej wax dëgg yàlla fonk na juli kon boo bëggee sëñ Tuubaa gëm ko dil julli alaaji Malick Sëñ Hadi Touré nee na fréquenté na ko fukki at yoo xam ne musul gis mu manqué jàkk nee na benn bis daal leen nekk ci masala yi di euh, waxtaan ci téere yi ba yëg ne waa jàkk ji julli nanu maanaam dañoo ñëw fekk waa jàkk ji julli ñoom kenn ku ne ber sa julli bopp nee na bis boobu la gis Alaaji Malick Sarr di julli mbooloo ah yow kon soo bëggee ne ñooñu nga bëgg ñooñu nga ñoom ngay roy te préparé loo ko dara ci loo leen toppe wala loo leen royee sa cofeel sànku na ku bëgg yonent bi te royuloo ko sa cofeel sànku na association yi nag bari fii bëgg yonent bi ku ne ku ne koy woote ku am tuuti alal donte sax alal je jaarul yoon yaa ngi koy bëgg a rafetalee maa sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk yàlla xam na li xew yëpp yonent ku ko bëgg da ngay moytandiku yu bon yi moytandiku ara alal ju bon moytandiku jëf ju bon di ko roy na mu gën a jekkee su boobaa boo nee maay sopp maay eh, eh, eh, soppe yonent bi bu boobaa ñu d'accord waaye may soppe yonent bi tey naan sàngara may soppe yonent bi tey yaa gën a mën a dàq tiriyan ñëpp ah li nga am dara baaxu ci sa cofeel ci yonent bi dëgguwul alaaj Malik nee na nanguwuma waaw walaysa nafon ala xubbin bila amalin moo tax yéefir yii di laaj yonent bi di ko lakkal ci bis penc wa yaquluna mata hada alwaadu in kuntum sadiqin yonent bi ne leen qul wax leen ne yàlla ne ko qul wax leen ne innamal ilmu indallah loolu yàllaa ko xam wa innama ana nadirun mubin man dama leen di waar rek gis nga yonent bi ku simple loon la nekku fay di waar nit ñi di leen wan yenn martaba yi nee na daal adduna bi kañ lay tukki moom xamu ko dama leen di waar rek ab oustaz laa bu leen di jàngal di leen waar yàllaa ma yónni ci yéen su ngeen mënee gëm-gëm dekki am na te yàlla dana ci fay bu ngeen ko gëmee baax na bu ngeen ko gëmul man sama yoon nekku ci ñoom yéeféri zulfatan muy aji jege si addaadi ñaaw nag wujuhu alladina kanamu gaañ nga xam ne kafaru weddi nanu wa qiila ñu ne wa qiila waxeef ne leen a ah, haada alladi bis bi la day mooy bis bi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen te doona doon sakku ci ak ñëw te doon sàkku bi ci ñëw bis bi yéena ko doon sàkku di ci lakkal yonent bi naan ko kañ la àdduna di tukki bis baa ngi te mooy ku tollu ci sukuraat sa bisu tukki àdduna jege na kon kenn ku ne ci yéefir yooyu ba mu sukkaraat nga xam ne malaaka mi taxaw na pël pour jël ruux ga wax neen ko ne ko bis bi la yonent bi doon wax jege si na nag su ko defee nag bu boobaa malaak euh, nit kooku bu dee génn kanam kanamam du rafet ah, léeg-léeg nga gis ko ci facebook bi ñu wane benn néew boo xam ne euh, dañuy wane dee gi ñu wane ko muy ree nga xool kanam gi mu leer ni kii da ngay rafet njortu ci ne nitu àjjana la ndax mbégte la génnee àdduna na kanam ga bellee ak na mu reey bu dee nitu safara nag kanam ga day ñàng ndax day mel ni ku ragal fa mu jëm moo tax ba mu jege see nga xam ne seen sukuraat jot na dee jot na malaaka yi taxaw na seen kanam dafay soppeeku nag ñaaw lool suñ borom ne sii at ñaa ñaaweef wujuhul ladina kanamu gaañ ñi nga xam ne kafaru weddi nanu waxii la ñu waxeef leen ne leen nag yéena doon weddi bis bi nag bis baa ngi nii haada alladi bis bi mooy bis bi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tëddauna doon sàkku yi ci moom yéen doon sàkku bu ñëw ñëw na yonent bi ne waaw léegi yéen lu ngeen koy doyee bis bi ndax man bu ma yàlla reyee rey ñi ma àndal reyaale leen ñun ñëpp ñu dee taxaw ci kanamam dégg nga mu dekkalaat ñu léegi yéen lan lan lan la leen bis bi di jëriñ parce que amu leen gëm yàlla gu tax ngeen di mucc kon safara ngeen di jëm kon ki gëm yàlla mooy dugg aljanna kon yéen keneen a ko war a laaj mais yéen waru leen ko laaj kon nag amul sens ben yalla ray ñu legi, indi bis bi wala mu bàyyi ñu ñuy dund ba suñu dund jeex mu jëlee ñu fi xaar yeneen ni siècle yu wara ñew yeen nak buñu leen topé léegi yalla yemale fi adunaam bi te yalla adunaam bi programme la amna ñeneen ñu wara ñew ci gannaaw way gëm leen lima leen wax te ngeen yam ci amul ben amalul yalla ben njariñ mu mu fi jëlee di fi jele ñima ñi and ak yéen di leen ak man di leen fi jele yeen di bëgg tukkal àdduna programme la programme bi dana continuer waaye li ma bëgg rek mooy ngeen xam ne dekki am na ci ku def lu baax yàlla fay na ko xul wax leen yow Muhammad ne ar ay nee na eh, solo leen ma ngeen wax ma yéen yéeféeri màkk yi in ahlakani allahu su fekkee yàlla rey na ma wa man maaya ak ku àndoon ak man aw rahimana wala mu yërëm ñu sax bañ ñoo rey bàyyi ñu dund programme mu àdduna continuer fa man yujirul kafirina ana kan mooy mën a xettali mën a ramm dégg nga yéeféer yi min azabin alimin ci mbugal mu tar mi leen di xaar ëllëg yéen àdduna tukki tey ak tukki ëllëg ci yem yéen bu àdduna tukkee moom kenn mënta fexe ba du ngeen dugg safara te amul kenn ku mën mën a taxaw wax ak yàlla ba yàlla yërëm leen ndax safara ngeen jëm xul waxal ni kenn mënu ko kudul yàlla huwa moom yàlla rek arrahmaanu mooy borom yërmande ji nga xam ne mën na leen baal ëllëg te du leen baal ñun de aman naa gëm nun bi ci yàlla jooju te te wa dégg nga te wakkal naa wàkkir nañu suñuy mbir yëpp alay ci moom ñun gëm nañ te ngëm googu moo ñuy sebe ëllëg yow man xeer fa sa taxlamuuna yéen a ngi wananteeg man waaye daa ngeen xam ëllëg xel seet na ngeen xam ëllëg man ana kan huwa moom ëllëg mooy nekk fii dalaalin ci cànkute mubinin guddi aji biir nanu dem rek buñu démé ba ëlëk bu taxawé ci kanam yàlla dañu xam kan mo joom ci ñun ma joom man wala yéen yéen joom ma sànku wala yéen yéen sànku qul wax leen yow muhammad ne raaytum wax leen ma yéen yéeféer yi ndox mi ngeen di naan mu jege leen lool muy ndox mu neex waaw suma ma jékki-jékki woon rek tëj robinet yi sakk teen yi ah ñiisal dex yi mënatu leen am fenn ndox mu neex ana kon moo leen mën a indil ndox mu neex qul wax leen ne araytum soloo leen ma yéen yéefiri màkka yi in asbaxa bu fekkee mujj na maa ukum seen ndox mu neex mii xawran di aji niis fa man yaatiikum ana kan moo leen di indil bi ma in main ci ndox mu neex muy daw ci seeni robine fu ngeen tijjee ci kër yi gis ko ba ngeen mën a am ay eau minérale ak lu ne soo demee ci bitim réew demee ni ki réewu tubaab yi am na ay eh, fontaine ñu tuddee fontana muy ay genre robinet yoo xam ne lu mu tàng-tàng boo ko ubbee day sedd boo duyee bidon bi day sedd guy lu mu tàng-tàng ajiwul sax dugal ci frigidaire waaw ndox moomu ci suufu doj yi lay génnee ci kàttanu yàlla yàlla di leen ko nàndal te ba léegi ba léegi nanguwu leen ne loolu xéewal la bu leen yàlla defal ngeen sante ko ko jaamoo ko ko kon mbokk yi lii moo di suuratul mulk muy saar boo xam ne tawxiid rek la yàlla ngi ciy jàngale tabaarakallaahu wax dëgg yàlla eh, nu nit di eh, moytandikoo safara ba bañ caa dugg kon tabaarakallaahu ñu teg foofu suñu baaraam eh.